y une peur des banques parce que en réalité di nga wax taux de bancarisation bi dafa faible alors que waroon na mën a waroon na mën a rëy parce que ñun on encourage la bancarisation wax dëgg yàlla dañ koy encourager parce que li muy li muy li mu am ci avantage dafa bëri bu ñëpp amee compte bancaire day day tax suñu état yi ñu mën a euh, contrôler suñu xaalis bi xayma masse monétaire bi ba pare question de sécurité da ci am parce que boo amul compte bancaire sa kër suuf ronlal bi nga koy def ci pneu bi nga koy def ci njëgënaay bi nga koy def yooyu te loolu amul benn sécurité amul benn njëriñ pour askan bi bu ñëpp amee compte bancaire ba dugal fa seen xaalis day tax banques yi am suffisamment de liquidité pour donner des prêts aux petites moyennes et grandes entreprises mmh. donc circulation fiduciaire bi circulation monnaie bi euh, avantage la ci ci ñëpp am seen compte moo tax ñun malgré tout on encourage la bancarisation mais nag boo koy encourager alors que de l'autre côté mhm. amul qualité de service les coûts sont élevés au point que les populations ne peuvent pas accéder y a pas de sécurité da ngay toog sa kër tout récemment trente millions benn waay toog këram rek bàyyi compte bancaire ñuy tibb di mhm. yóbbu ñii Hong Kong lañ nekk ñii Nigéria lañ nekk mu dem le lendemain ñu ne ko yaa yaa ko retiré mu ne leen mais man mënumaa nekk dëkk yooyu di retiré donc cybercriminalité bi amul sécurité au point que nit ñi dañuy préférer jël sa xaalis def ko feneen que ñu koy dugal ci banque yi alors dafa war a am benn assurance boo xam ne en cas de cybercriminalité euh, dañ leen di protéger ñoom c'est-à-dire assurance bi moom mooy ñëw mu fay à la place euh, du du du débiteur